santé de manière générale améliorée wu au Sénégal dafa nekk lu soxal fondation mag ñi nag daf dañu constituer benn frange bu am importance aux yeux de la fondation Sonatel santé wu mag ñi dañ ci yàgg yëngatu euh, li ñuy defal mag ñi en général mooy journée de consultation gratuite yoo xam ne du ñu fay dara et particularité wu suñu journée de consultation gratuite mooy ñun dañuy jël disons domaine périmètre bu large large et tout te financer financé gratuitement par la fondation Sonatel ñun yëpp la ñuy jël gratuitement mag mi ñëw di faju si du fay dërëm du génnee dara ci poche am beneen volet bu am importance aussi bu ñu jagleel mag ñi mooy cataracte xam ngeen ni cataracte fléau la dafay euh, mag ñi lay gën a dal de manière générale euh, fondation Sonatel daf ci yëngu lu bare bare et ci gox yi gën a sore ci Sénégal mag ñi daal xam leen ni euh, seen wërgu yaram daf ñu soxal seen bien-être daf ñu soxal lépp loo xam ne daal daf leen di tax ñu vivre étape bi boobu nga xam ne dafa nekk étape spécial bu laaj toppatoo bu laaj gunge daf ñu soxal te dinañ ci def suñu kéemtalaay kantan pour que mu nekk loo xam ne vraiment day wëy maa ngi leen di gërëm di leen sant.